jërë ngeen jëf bilan bu Macky sàll ci bopp réewum Sénégal musiba la Mamadou Ndoye moo ko wax ci xët mu njëkk l'Observateur Mamadou Ndoye mooy ki ne jamono secrétaire général bu parti bi di LD nee na muy Macky Sall ci boppam di bilan ñu mu àndal lépp catastrophe la ci waxtaan wu yaatu yu mu séq ak wàll Observateur moom Mamadou Ndoye ma nga fay ñaawlu ak a naqarloo ko mitit lu tëj gi ñu tëj université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru dem na ca bay xam le ne booy seet mbir yi sabotage day niro Amadou Ba mi ñuy def candidat bu Benno Bokk Yaakaar Mamadou Ndoye li mu jàpp mooy bu lépp jaare ci yoon deuxième tour sax waru faa mën a yegg mu ne ndax Macky Sall mi ko tànn teg ko ngemb ko moom ci jëmi boppam bu bokkoon ci élection présidentielle yi 2024 yi du jàll wàllu observateur jàll ak moom ci coowal milliards yi Qatar yi ñuy tumal Ousmane Sonko Mamadou Ndoye lam ci wax mooy loolee ay caaxaan la nañ wax farata yi te bañ ji divertir nit ñi ak xaalis bu jugee ci meneen réew mu mën a doon ki ñuy tuumal financement bu Qatar bi di Ousmane Sonko su du côté mi ngi ñuy xamal ne génnagul ci mbàll gi ba mi ngi gën di taq suuf for collusion laaj ba léegi jotagu ci ne démb rek ñu ànd ak avocat bi di maître Ciré Clédor Ly ba ñu gontee dem ca direction générale des élections ba ñu yeggee dugguñu la nañu li bëggoon mooy dem ca direction générale des élections yeggee leen dogalu justice bi ne nañu dugalaat Ousmane Sonko ci liste électorale yi waaye direction générale des élections da di waa daaf fa ñu taxawoon fa la taxaw ba tey Vox Populi nañu moo taxit mandataire Ousmane ñu àndaloon démb ba ñu demee démb ca direction générale des élections ne dañ doon jëli fiche de parrainage yu Ousmane Sonko yi dara toppewu leen fa loxoy neen la ñuy ñibbee dugg sax defuñu ko waa direction générale des élections di leeral ci yéenekaay bi li tax ba ñu taxaw fi ñu taxaw nee nañu li fekk dugalaatuñu Ousmane Sonko ci liste électorale yi ba mu wéer leen péng duñu ko mën a jox fiche de parrainage am sour soit di ñu baaxit ci xëtamu njëkk plan bi Ousmane Sonko nas ngir ñu valider candidature am nee bi ñu ko tëjalee buntu direction générale des élections ab mandataire am ak i ñu fas yéene mooy ànd ak seeni huissier de dem ci ministère de la justice dem ci ministère de l'intérieur ak ca caisse dépôt et consignation mi ngi ñuy xibaar it moom suur suwaane Ousmane dana déposé ji ab dossier ca conseil constitutionnel candidat bu Benno Bokk Yaakaar bi di Amadou Ba le public nee nañu congrès d'investiture bi ñu ko waroon defal do am ab conseil national dañu koy defal ca hôtel King Fahd Palace téeméeri maire ak fanweer ak juróom-ñaar journal lay fa nee nañu ñoo takku ba dëgër jëm ci defante réew mi ay maire wàtt ci mbeddi dëkk bi di def ay doxi ñaxtu ak i toogaani ñaxtu la ñuy ñaxtoo ko xultu di sàkku ñu régler leen ko ñoo maire yooyee journal l'info ne nañu mooy bokk na ci mise en place généralisée bu PACASEN rural bokk na ci koppar yu PNDL bokk na it ci agent yi newoon ci xëyu ndaw ñi ak ca feera de ñu leen ameel ñu fay leen ko ba mu jeex tàkk coowal faux billet kañ lay dem ba jeex tàkk ci réew mi ci diggante weeru avril ak décembre gi ñu nekk liberation ne nañu jàpp nañu ci réew mi toll ci 8 milliards 600 millions faux billets yi ñu mujjee jàpp ne nañu àjjuma ji weesu la people brigade de recherche bu Kër Massar moo ko sisir mu di ay faux billets yu toll ci ñetti milliards Malick Faye dib enseignant bu nekk ca sem de Saly moom la ci njëkk a jàpp ginnaaw bi ca la ñu tegee loxo yeneen juróomi nit yu bokkoon ci dil bi kanne seen fournisseur principal ñu naan ko Saliou Niang libération nee nañu moom ñoo ko jàppee ca kees Louga fa laa xooli la ñuy ne moo fa xew ubbil yéenekaay bi benn waay bu ñu naan Ahmadou Ndiaye moom la ñu fa tëj juróomi ati kaso mooy moom Ahmadou Ndiaye dafa amoon